bu ñu waxutoon ne ñaan leen ma ma may leen duñu xam xéewal yooyu nekk fa moom nu ñu toll ak ñu nu ñu dey ba tax na mu ñuy wax ci alquran wa aataakum min kulli ma saaltumuh wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuuha nee nañu may naa leen jox naa leen lépp loo xamante ne ñaan ngeen ma ko lépp loo xamante ne xam naa ne soxlaal ngeen ko jox naa leen ko jox naa leen sax la ngeen ma ñaanul te xam naa ne loolu dina bokk ci seen yitte te dina bokk la ngeen yittewoo jox naa leen loolee waa ataakum jox naa leen min kulli ci lépp loo xamante ne sa altumuhu laaj ngeen ma ñaan ngeen ma ko xataa lu ngeen ma ñaanul sax may naa leen ko jox naa leen ko ndax xam naa ne lu leen yitteel la waaye nag yalla nee na li fi nekk mooy wa in tauddu nicmatallah bu ngeen fi nekk naan dangeen di géem a lim da ngeen di géem a xayma xéewalu yàlla yamaleen xéewalal laa tax suuxa du ngeen ko peek du ngeen ko matal du ngeen ko dajal waaye li fi nekk innal insana la zaluman kafoor doomu aadama de da di jëmm juy dëkkee di tooñ boppam ci xéwal yaa ko yàlla xéwalal waaye kafaar da di jëmm joo xamante ne day weddi saa ne xéwal yaa ko yàlla xéwalal kon ñun bu ñu bokk ci ñay tooñ seeni bopp ci xéwal ya leen yàlla xéwal waaye bu ñu bokk ci ñi weddi xéwal ya yàlla xéwalal doomu aadama yooyu ñun nañu bokk ci ñay sant xéewalu yàlla ci ñun ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu bokk na ci xéewal yooyu xéewalu nelaw bu la ko yàlla wërsëgalee boo yeewoo ci nelaw la nga war a sant yàlla noo war a sant yàlla mooy danga naan alhamdulillah mboolem xeetu cante ñeel nañu yàlla alladi ndax mooy buur bi nga xamante ne ahyaana mu ma delloo sama roo baadama amatana gannaaw bu mu dogalee ci sama jëmm ji dee bu ndaw te mooy nelaw waaye nag wa ilayhi ci moom yàlla lañuy dellu keroog bu ñu taxalikook dund bi ba tax na ñu di ko ñaan yàlla ndi ko ne allahuma buur yàlla anta salaam yow mi yore jàmm wa minka salaam mboolem xeetu yiw yeeg jàmm yi fa yow la ñuy bàyyee ko ilayka yaudu salaam mboolem xeetu jàmm yeeg yiw yi fa yow yàlla yàlla lañuy ñuy dellu fa xayin na bisalaam kon ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu dundal ci jàmm yàlla nga ñu may jàmm suñu réew fa xayin na bisalaam yàlla nga ñu dundal ci jàmm fa xayin na bisalaam yàlla nga ñu defal jàmm ci suñu réew mi allahu akbar yàlla nga ñu may jàmm yàlla képp koo jàmmal kooku mooy ki nekk ci jàmm yàlla nga ñu may jàmm wa duxilna al jannata daaraka daaru salaam keroog bu ñu noppee ci dund bi nag yàlla bu ñuy dajeek yow na nekk ci jàmm ëllëg bés pinj nga may ñu xéwal wërsëgal ñu dugal ñu kiru jàmm ba nekk fa yow te mooy arjanna mbokk yi na ngi fàttaleku ñu ngi doon waxtaan ak yéen xool ba yàlla tudd ci alquran mu doon téeméer ak fanweeru yoon keroog ñu ngi yemoon ak yéen ci xol boobu nga xamante ne mooy xol bi nga xamante ne mooy xol bu takku ragal yàlla mooy qalbun taqi ñu ne qalbun taqi huwa alladi yuazzimu sha'air allah xol bu takkook ragal yàlla buy bàyyi xel yàlla ci lépp ñu ne mooy xol bi nga xamante ne mooy màggal màndarga ya yàlla joxoñ ne yii de samay béréb lañu samay mbir lañu tey ñu fas yéene leen digtal beneen xol bi nga xamante ne mooy qalbun hayy xol bay dund ñu ne mooy wa huwa alladi yuminu billahi wa yashkuruhu wala yakfuruhu ñu ne xol bay dund mooy xol wi nga xamante ne mooy xol bu gëm yàlla mooy xol buy sant yàlla ci xéewal yi waaye mooy xol wi nga xamante ne du musa weddi yàlla ci xéewal yako yàlla xéewal ñu ne alqalbul xay xol bay dund waxuwa mooy xol wi nga xamante ne allidi mooy xol yuminu billahi xol ba gëm yàlla wa yashkuruhu mooy xol bay sant yàlla ci xéewal ya ko yàlla xéewalal wala yakfuruhu mooy xol ba dut masa weddi yàlla ca la ko yàlla xéewalal xol boobu day dëkkee di sant yàlla ci xéewal yi waaye xol boobu jamais muy weddi yàlla ci xéewal ya ko yàlla xéewalal ñu ne xol boobu mooy xol bay dund mbokk yi manes nañoo tegtaloo xol bay dund ni yenentu bi tegtal ñaari xol a ngi nii ñaari xol ñoo ni nii yenentu bi bëgg ñoo wax xol buy dund xol bu dundul mu ne matharul qalbu alladi hayyi wa qalbu alladi laa yadkuru llah mathalu alladi yadkuru rabbahu wa mathalu alladi laa yadkuru rabbahu melokaanu xol ba nekk ci jëmm bay tudd yàlla ak melokaanu xol ba nekk ci jëmm joo xamante ne du tudd yàlla melokaanu xol ba jëmm joo xamante ne day fàttaliku yàlla ak melokaanu xol ba nekk ci jëmm joo xamante ne du fàttaliku yàlla yonent bi neena na ka masalul hayyi wal mayyit moo ne mu ngi mel ni ku dee ak ku dund ñu ne ku dee kooku kenn amut solo ci moom kenn amut njëriñ ci moom amut njëriñ ci kenn kenn amut soxla ci lu dee médd kenn amut soxla ci moom lu dee kenn amul soxla ci moom lay dund la nit ki soxla lay dundu la nit ki mën a jëfandikoo kon xol ba nekk ci jëmm joo xamante ne jëmm jooju day tudd yàlla day fàttaliku yàlla yenentu jëmm jooju la tegtal ne xol boobu mooy xol bay dund moo ne bay dund ñoom la yàlla tagg ci alquraan alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi alsamawati wal ard melokaanu xol ba nekk ci jëmm ji nga xamante ne jëmm jooju day fàttaliku yàlla buur yàlla nee na melokaanu xol boobu ak jëmm jooju ñooy ñoo xamante ne dañuy ko yàlla dañuy xelaati yàlla dañuy tudd yàlla saa su ne ñoom la yàlla wax ne alladina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dhikrillah alaa bi dikrillahi tatma'innul quluub ñooñu la yàlla di tëgg ci alquraan bur yàlla ne alladina gaayaa ngi nii ñoo xamante ne bokk na ci seeni màndarga amanu dañoo gëm yàlla mooy xol yay dundu xol bay dundu yàlla dakaa melale xol bu gëm yàlla wéetal yàlla bokkaalewul yàlla ak dara yàlla ne xol bay dund ñooñu ñoy xol wi nga xamante ne ñoo gëm yàlla wiital ko ci nguuram wiital ko ci moomelam ak ci turam yu sell ñi yàlla ne na alladina amanu ñooñu ñooy ñoo xamante ne dañoo gëm yàlla wiital ko ci nekkinam ak ci melokaanam ak ci turam yu sell yi yàlla ne gannaaw bu ñu gëmee yàlla gëm yàlla bi ni mel ñaareelu garaat baleen yàlla bëgg tabal mooy watat ma inn qulubuhum bi dhikrillah yàlla nee na ñooñu ñooy ñoo xamante ne dañoo duy dañoo remplir seeni xol ak espace ya ci seeni xol di ku yàlla kon fàttaliku yàlla du ku nekk ku jóg bëgg kaa def déedéet sart bu njëkk bi dangay doon ko gëm yàlla waaw boo gëmee yàlla bañ koo bokkaaleeg dara bañ koo bokkaaleeg lenn yàlla daal di placer sa biir xol sa biir dënn ay espace yoo xamante ne danga koy remplir danga koy sol di fàttaliku yàlla waaw al qalbun xay xol bay dund wa huwa alladi yuminu billah mooy xol ba nga xamante ne mooy xol ba gëm yàlla wa yashkuruhu mooy xol bay sant yàlla ci xéewal yi wala yakfuruhu mooy xol woo xamante ni daa lànk tëdd ci naaj ba bañ a weddi yàlla ci xéewal yi kon xol ba nga xamante ne moom lañu ne xol bay dund la xol woowu day nangoo gëm yàlla wéetal ko ci moomeelam ak ci nekkinam ak ci turam yu sell ñi mu bañ a bokkaale ki yàlla ak lenn mu bañ a bokkaale ki yàlla ak dara wiitali yàlla ci nguuram wiitali yàlla ci turam lam ñu ne suñu yonentu bi noonu la ñu wax ne yàlla nee na walillahi l asmaul husna faduuhu biha ñeel na yàlla tur yu sell te set te jekk lool ni ngeen kawoo ci tur yooyu nan kawoo ci tur yooyu yeneen tur yu kenn xamul fuñ ko tëggee ak nuñ ko composé na maandu ci tur yooyu xam ne xam ne du turu yàlla yi yàlla ne sama melokaan bi nii la bu ko wàññi bu ko yokk lala yonent bi ne yàlla nee na melokaanaam bi yadullahi fawqa aydihim loxo yàlla mu ngi ci loxo fow aydi aydihim yàlla ngi teg loxom ci kaw loxo way gëm yàlla ñi bu ko méngaleeg sa loxo ak sama loxo ak loxo mbindaafoo ni yemal rek lala yàlla ne yadullahi loxo bi yàlla fawqa aydihim mu ngi féete seeni kaw loxo yemal foofu rek boo fi nekkee di ma choisir loxo yàlla nu muy mel loolu dalay dugal ci xalat dalay dugal ci sikki sakka joo xamante ne dangay dem dangay ngay invité seytaane sa xol seytaane di la xalaat loolu nga xamante ne mooy tax nga bokkaale yàlla ak lam la joxoñ kon bu la yàlla ne sama loxo ngi féete kaw loxo way gëm yàlla ñi dégg ko noonu nga yemale foofee bu fa nekk di xool nakalak loxo gi yàlla ak nu mu melak na muy deme jaru ko comme yàlla joxewu la melo yonentu bi tegtalu la melo aaya bi nu mu ñëwee ti déggee noonu nga yem fa téye ko noonee loolu mooy xol ba dund koo xamante ne xolam dafa dund xol bi dafa gëm yàlla bokkaalewul ak yàlla lenn tokk bokkaale yàlla nekkul ci xol boobu ci jëmm ji manifesté wu ko ki gëm yàlla anam gëm yàlla winimel ni mel ñooñu la yàlla wax ne wa tatma innu qulubuhum man yàlla may palaase espace yu yaatu seen biir xol seen xol di naat seen xol di jébbi seen xol di belli seen xol di rafet seen xol di nice seen xol di dund allahu akbar xol bay dund noonu mooy génnee mooy manifesté wu ci seeni cër dañu wax lenn lu ñaaw duñu wax lenn la nit ki di dare noppam ne ëpp lii moom ëpp na gros waaw xol yooyu ci jëmm yu ñu nekk duñu wax gros ku leen wax gros dañ lay dañ lay dañ lay jéggal waaw ku leen wax wax ju jéggi dayo dañ lay jéggal waaw xol yooyu ci jëmm yu ñu nekk soxna Mari ñooñu ñooy doon ñu yore nopp garmi ñooñu duñu déglu lu ñaaw duñu ko dégg duñ ko déglu ku leen koy wax tamit dañ la naan sax ah bu ma sañoon daal ñu bañ a waxtaanee lii waaw ah, bu ma sañoon ñu bañ a waxtaanee lii ñu waxtaanee leneen ñooñu la yàlla may seen xol mu rempliru di fàttaliku yàlla seen xol di naat seen xol di belli seen xol lu muy dund mooy manifestewu ci seeni jëmm nopp bi di déglu lu ñaaw but bi du xool lu bon gémmiñ bi du wax lu ñaaw tànk bi di dox di jëm fu ñaaw loxo bi di lor kenn loxo bi day njëriñ tànk bi day dox doxu mbokk tànk bi diggante kër ga ak jàkka-jàkk liggéeyukaay bekk lu ko amal fulla lay dox but bi la ko amal njëriñ lay xool nopp bi bu déggee hayya ala salaa hayya ala falaa mu waajalal boppam tànk bi yóbbu jëmm ji ci jàkka ja xol bu mel nii bépp jëmm bu muy dund jëmm jooju nii lay mel jëmm jooju loxo bi du lor kenn du tuur deret jëmm jooju day njëriñ nit ñi waaye du lor kenn xol boobu noonu mooy xol bi nga xamante ni dafa gëm yàlla yàlla ne wa tatma innu qulubuhum jëmm yooyu la seen xol duy bëgg yàlla am na xol yoo xamante ne lu ñu rempilul lépp lu ñu rempilul seeni xol mooy xobbu duniya sopp àddina bëgg àddina bi mu jéggi dayoo am na xol yu remplilu xubbu duniya am na xol yoo xamante ne dañoo duy espace yaleen yàlla créer seeni xol adduna dong lañu fa def ba mu fees dell tuuti yàlla lañu am ci seen xol espace bi daal yàlla lum ci am as toq la addina occupé seeni xol waaye am na ñeneen ñi nga xamante ne yàlla may na leen qalbun hayy xol bay dund ñooñu la yàlla ne wa tatma innu qulubuhum bi dhikrillah ñu remplir ñu duy ñu feesal seen xol ci tudd yàlla ñu feesal seen xol ci xalaat yàlla ñu feesal seen xol di sabbal yàlla saa yoo leen seeni ñu ngi wax subhaanallah wa bihamdihi wa subhaanallah wa laa ilaha allah akbar ñuy wax turu yàlla wi mel waaye ñu xam la ñuy wax lu mu firi ak lu mu wundu ñooñu ñooy ñoo xamante ne bu ñu déggee noddukat bi di wax ne kaay leen ci julli kaay leen ci texe ñu bàyyi lépp la ñu nekkee ñuy dem joxe la leen noddukat bi woo ñoo ñu ñooy boroom xol yu dund yi waaye neena bi léegi wa yashkuruhu ñooñu ñooy boroom xol yoo nga xamante ne dañuy sant yàlla ci lépp ñaari bët yi ngay xool gis kawteefu yàlla dangay sant yàlla ci loolu ñaari tuñ ya nekk sa gémmiñ ñuy orienté say wax ñu taaral sa jimm ji dañuy sant yàlla ci loole julit ba nga doon nekk xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nga di ko xalaat xol boobu di xalaat loolu ci jimm ji xol boobu day sant yàlla ci loolu allahu akbar mun na laa boole ci xeetu yonenti yàlla yi fi jiitu woon nga xamante ne yàlla lu mu jëflanteek ñoom nga bokk ci ñooñee te doo ci mun dara waaye yàlla boole la ci xëytu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga doon xayra umma uxrijat linnaas la yàlla wax ci ñun yéen a gën ci xeet ña ma génnee yéen a gën ci xeet ña ma musa bind yàlla boole la ci loolu te bu la ci doon boole tàgguwul la nga xalaat loolu si sa xol sa xel xalaat loolu nga sant yàlla allahu akbar ñu jox la ay privilèges yoo xamante ne kenn xamut nu ñuy toll pour nga weddi yàlla nga lànk bi tëdd ci naaj wi ne du ko def allahu akbar ndax yàlla may na ma xol ba ma koy sante ba bare mënumaa jàllar be ko wëlbatiku jël xol boobu di ko weddee yàlla di ko moye yàlla loolu mënuma xaa def allahu akbar yàlla may la jumtuwaay wi nga xamante ne da ngay mun a lekk lu teete dagan mu rees mu war a génn yàlla yombalal la ko mu génn amuloo ci benn jafeñ-jafeñ nga xalaat loolu ci sa biir xel nga xalaat loolu ci sa biir xol nga sant yàlla allahu akbar moo tax mu ne la al qalbul hay xol bay dund wa huwa alladi yuminu billah mooy xol ba nga xamante ne dafa gëm yàlla wéetal yàlla bokkalewul yàlla leen bokkale woo ko ko dara wa yashkuruhu mooy xol bay sant yàlla ci mboole xéwal ya mu gis xatta bu demee bi am sentiment boo xamante ne gis na ne li ma santiru nii de war naa si sant yàlla da ciy sant yàlla som ñu borom subhaanahu wa waaye amul dara lañ ko war a tegal ci xeetu privilège su àddina ngir mu moy yàlla day lànk ba tëdd si naaj bi moo tax léegi-léegi ndeysaan sama gaay ñi ma xam yal na leen yàlla sàmm yal yàlla yokk xéewal saa yu ñuy génn seen kër yu luxe yi waaw dañu naan bismillah tawakkaltu ala la hawla wala quwwata illa billah ñu génn dem ñu ne maa ngi tàmbali sama génn bi wàkkeerul naa sama lépp fa yàlla buur bi nga xamante ne amul benn kattan bu fi nekk lu dul kattanam waaye amul benn pexe bu fi dukkat lu dul pexeem moom buur bi ci moom laa làqatu daal di génn seen kër ñooñu bu ñuy génn seeni kër du ñu def ay yëf yoo xamante ne diine jàngalew ko non déedéet ñoom bu ñuy génn seen kër yu luxe yooyu la yonent bi jàngale diini islam tegtal ko noonu la ñuy génne seen kër allahu akbar ñooñu ñooy ñi nga xamante ne dañuy sant yàlla ci kër ba leen yàlla jox buñ fay dugg dañ fay duggee comme na yonent bi santaane ne noonu la jullit di duggee këram waaye bu ñuy génn seen kër noonu la ñuy génnee seen kër lu mel ni la yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa ñooñu ñooy ñi nga xamante ne dañuy sant yàlla ci seeni xol ak seeni xel jamono bu ñuy duggee seeni oto ñu ni bismillah murj mursaha bismillah mujraha wa bismillahi mursaha wa inna ila rabbina la munqalibun subhaana alladi saxara lana haada wa maa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun ñii ñoo ñoo xamante ne seen oto bu luxe xeetu oto nañu am xeetu oto bu ñu munti am hatta bu ñuy dawal ferrari sax nañu naan bismillahi mursaha wa mu bismillahi mujuraha wa mursaha amul benn façon oto bu ñuy dawal bépp waruwaay bu ñuy daw bu ñuy yëg avion bu ñuy war gaal lépp dañuy jàng du'a u rukubu daab bismillahi mujuraha wa bismillahi mursaha ñoo ngi tàmbali dugg ci waruwaay bi ci turu yàlla buy daw waaye ñu ngi tàmbali ci turu yàlla waruwaay bi buy taxaw yàlla mooy buur bu ñu ko tàggatal yàlla mooy buur bu ñu ko wërsëgal ñooñu ñuy sant yàlla ci xéewal yaleen yàlla jox yonent bi ne bu dee xéewalu kër la nanga nga duggee sa kër gi nii booy génn sa kër nanga nga génnee sa kër gi nii bu dee xéewalu waruwaay la yonent bi nee na na war sa waruwaay bi ñaanal lii ndax seytaane buggu saasu ne bu ñu yàlla may xéewal ñuy sant yàlla ci xéewal yooyu xataa li ngay lekk yonent bi boo koy jëfandikoo na nga wax bismillah ana wax moo gën a woyof lii nga di ko wax doo am coono doo am difficulté doo ñàkk doo tay ne bismillah nga lekk yonent bi ne bu la seytaane fàtteloo ba munoo ko wax nanga nga ne bismillahi fii awwalihi wa fii axirihi na nanga wax bismillah maa ngi tàmbale ñam bi ci njëlbeen bi ak njeexintal ba nga xamante ne seytaane dalay sore du associé ki yow ca loolu ngay jëfandikoo ci lekk ba ngay lekk ñii la yonent bi ne ñii ñooy ñi nga xamante ne ñoo yore boroom xol yu yaatu yi boroom xol yi nga xamante ne seen xol day dund allahu akbar waaye au contraire ñun dañuy gis nit ki ndeysaan mu leer mu nekk anam bu macha allah ñu ne ko sax xolaa ngi dund waaw ñun léegi-léegi ñu yéeg ci pojum ñu naan mbaa xol yaa ngi fiix ci li nga xamante ne ñu ngi ànd ak seytaane ci béréb boobee ñu naan mbaa xol yaa ngi fiix ku nekk ci jàq ji moo war a laaj ba xam xol yaa ngi fiix waaye nekk ci béréb bi nga xamante ni ki nga fa nekkal noonu yàlla la te moo génnee sa maam ca arjana béréb boobu ngay laaj ba xam xol yaa ngi fiix foofu xol yi fiixuñu foofu foofu xol yi dañ ñu ngi torox ndax la def coono la la ñuy jëf yàlla bugg ko la ñuy jëf képp ku mbaax ñor bugg ko kon bu ñuy laaj ba xam yaa ngi fiix foofu xolu kenn fiixu fa xolu kenn fiixul ci béréb boobu parce que bérébu moykat bérébu moyukaayu yàlla la xolu kenn fiixul foofu la ñuy def mooy yàlla la xelu kenn fiixu fa lañuy def foofu noonu képp ku mbaax ñor bëgguloo ko kon xolu kenn fiixu fa koo jox gëdd képp ku nga respecté képp ku nga xamante ne nawloo nga ko bugguloo mu fekk la béréb boobu lu tax ñuy laaj foofu ba xam xol yaa ngi fiix loolu kenn fiixut foofu ndax lu ñuy def foofu du lu ñuy fiixal suñu xol coono lañ ciy jëlee ak bàkkaar kon moo tax mu ne alqalbul xay xol bay dund xol bu fiix mooy wa huwa allazi yuminu billah mooy xol ba gëm yàlla bokkaalewul yàlla ak leen wa yashkuruhu mooy xol buy sant yàlla ci bépp xéwal yi ko yàlla defal wala yakfuruhu mooy xool wi nga xamante ne du weddi yàlla lenn du weddi yàlla ci dara la ko yàlla xéewalal ci xeetu xéewal yow da am ñaari tànk santal yàlla ci ñaari tànk yàlla yàlla jox nga di ko doxee am na koo xamante ne fauteuil roulant la yore kooku bekke lay doxe santal yàlla ci ñaari tànk yooyu waaye ngay jël ñaari tànk yooyu di ko doxee jëmee ko fa ngay moyee yàlla yow santuloo yàlla ci ñaari tànk yooyu yàlla jox la ñaari bët ne la na nga xool la lay njëriñ ci sa àddina la lay njëriñ ci sa diine nga ne lànk man duma ko xool man la may xool mooy la neex sama bànneexu bakken te bànneexu bakken ñaare lu ko neex ba nga di ko xool loolu ak sore li la yàlla xool loo si ñaari bët yi am na koo xamante ni yàlla xañ na ko ñaari bëtam kooku bu ko yàlla joxee ñaari bëtam kooku du fi nekk di xool la lay merloo yàlla ci la muy xool mbokk yi nañ leen bàyyi xel xéewalu yàlla ci suñu jëmm yi nañ leen delloo yàlla njukkal ci xéewal yam ñu xéewalal ci suñu jëmm waaye nañ leen bokk di sant yàlla ci xéewal yam ñu xéewal ci suñu jëmm yi ñu bañ a jàpp xéewalu yàlla ci yow koom-koom la dëkkuwaay alal naam loolu yëpp xéewal la baax nañu waaye am na koo xamante ne boo ko xoolee boo ko seetee ba ngi gis dinga xam ne aa ah, ndekete am na lu ma yàlla defal lu mu defalul kii yow yaa ngi dox kii doxul yow yaa ngi gis kii gisul yow yaa ngi wax kii waxul yow yaa ngi dégg kii déggul yow yaa ngi mën a dem ak a ñëw kii mënul dikk mënul dem mënul dikk mënul dem fenn waaw yow yaa ngi nii yaa ngi mun a lekk kii balaa muy lekk il faut ñu jaarale ko ci raccord yow yu noonu yëpp munoo koo xool allahu akbar yow yaa ngi nii am nga ka ngay yónni kii amul ku muy yónni yow yaa ngi nii am nga takkandeer ba nekk ak yow kër gi kii amu ko yàlla wërsëguwu ko kon jëlal loolu yëpp nga def ko la ngay santi yàlla ci sa biir xol ndax sa xol mën a dund comme la yonentu bi ne xol buy dund mooy xol bu gëm yàlla mooy xol buy sant yàlla waaye mooy xol bu dut weddi yàlla moo tax mu ne alqalbul xay xol bay dund wa huwa alladi mooy xol wi nga xamante ne yuminu la xol boobu mooy xol ba gëm yàlla bokkaalewul yàlla ak lenn bokkaalewul yàlla ak dara alqalbul xay xol bay dund mooy wa yashkuruhu mooy xol bay sant yàlla ci xéewal ya ko defal alqalbul xay xol bay dund mooy xol wi nga xamante ne wala yakfiruhu mooy xol bu dut weddi yàlla ci xéewal ya yàlla defal ñu ñaan yàlla suñu borom di ko ne allahuma muqallibal qulub sarrif qulubana ala taatik allahuma ya musabbital qulub thabbit quluubana ala diinik yàlla yow miy wëlbati xol yi di ko jëmale fala neex yàlla nga saxal suñu xol jëmale ko ci ñu di la topp yàlla yow mi saxal xol yi neex yàlla nga saxal suñu xol ci sa diine amin ya rabbal alamin mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi saa ilina mawla jalla wa ala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana